rahmatullahi taala wa barakaatu euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ngi leen di ziar bu baax di leen nuyu ñoo ngi fii ci Touba Lansar euh, ci bis bi nga xam ni moom la wax euh, bisu waa Mafatihul Bichri mu ñu koy def chaque année bu jot di ko defee fi nga xam ne mooy Touba Lansar mu doon bis boo xam ne bis bu yéeme la bis boo xam ne dañ ci tarbiya ay xale bis boo xam ni dañ ci jàng ay xasida bis boo xam ne dañ ciy feeñal njàmbaaruk Serigne Touba waaw xam naa nag dinañ leen dëgtal li nga xam ne mooy xew ci bis bi yëpp incha allahu rabbi bu ko defee programme bi ni muy demee ngoon gi ak suba gi ak jànkat yi nga xam ne ñoo fi nekk ak waañ bi lépp incha allahu rabbi dinañ leen ko dëgtal ak ngeen xool liggéey ma faatuñu bisir bi nga xam ne moom la Cheikh Ibrahima liggéey ci ndaw ñi fii ci Touba Lansar xam naa ba ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu jàll ak yéen ci yeneen programme incha allah ngir yaa fi gën te ñun Mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ rawee nañ ci yow Mbàkke yaa tax ñu raw te yaa may ñu tawfiix de ñun sant nañ jariñ jam ñi yaa def ko yaa say xanaa njariñ yaa ko yor Mbàkke ñun sant nañ ñun sant nañ te xej jam ñi yaa yor ko yaa say texe nañ ci yow Mbàkke ñun sant nañ borom màggalu Tuuba santay li wara ci yow fawu Mbàkke de ñun sant nañ borom màggalu Tuuba santay yow fawu Mbàkke de ñun sant nañ ruuy jam ñi yaa yor ko yaa say jam ñi yaa def sant nañ walay ñun de xam nañ ñun sant wallaay ñun de xam nañ waaw lépp rafet na de lépp rafet na sama doom jërëjëf fekk defoon nañ ko daaw fekke rek yal nañ ko fekkewaat daaw rafetu fekken sëñ Ibrahima yàlla li bëgg ci Serigne Touba Mbacke yal na ko saa bi defal ak yéen ñu ko ko ànd ak moom yéen ñëpp lépp mbir mi rafet na lool sant nañ suñ xol daal fees na del yal nañu sëñ Touba fooy ñun ñëpp ci barke sëriñ Touba Mbacke ki mu koy defal moom jar na defal bis bu ne ki mu koy defal moom lépp rafet na barke sëriñ waaw ku baax ñuy santaat yàlla bu baax del ci lay santoon daaw dañ ko fekkee daaw fekkaat ko ren bis bi nag moom gis nga ni mu demee rek liggéey sëriñ Touba la bisu xasida lañ wax kon nag lu ci waay def lu nekk rek sa bopp nga ko defal. organisation bi comme ni ma waa ji moom ñu ñëpp ñoo bokk liggéey bi liggéey sëñ Tuubaa ñu fendi te kii woote bis bi muy sëñ Ibrahima bu nekkoon fu mën doon nekk ci Sénégal wala Afrique bu bis bi jotee di ñëw ndax jaroon nañu ko te di santaan ñëpp na seen taxawaay baax te xam ni moom ak defaroo ngi fi ak jariñoo ngi fi yal nañ ko sëriñ bi dafa ci barke xasida yi bisimilah barki Cheikh Ibrahima Fall barki Cheikh Ibrahima Fall barki Cheikh Ibrahima Fall ñoo leen di ziyaare bu wér wér di lu teewaay bi di lu taxawaay bi di rafetlu liggéey bi di di si jàngatee di ci soññiwaat suñ bopp di xam ni kat liggéey sëriñ bi moom nii rek lay demee ndax kat boo xoolee eh, ni bis bi demee ak boo xoolee bisu njëkk ya ak ak bisu tay bi da xam ne sëriñ bi liggéeyam amul tànki ginnaaw tànki kalam rek la am te daanaka liggéey bi yëpp dañ ciy góorlu rek waaye sëriñ bi mooy mooy jagal lépp. lu mel ni dafa mel ni waxoon nañ ko daaw dañuy dañuy dañuy feddali rek waaye du ñàkk ni sama beneen jëw di nana ci wax waaye ni liggéey bi demee woon dañ koo bëgg a leeral ak ba fi agsi liggéey bi Sëriñ Ibrahima Ndiaye la ko sëriñ bi jagleel mu ñëw ci gox bi di liggéey am soxna yu mu ko àndal dem a dem dem dem ba xamante ni sëriñ bi da koo booleeg ñun mu ànd ak ñun waaye liggéey bi ay ceebu jën la doon baaxantale ci bis bi waaye dem na ba xamante sëriñ bi ren di ñaari nag nañ nañ defar kon yokkute am na ci bu baax a baax te daara ji kat dañ ciy woote tarbiye di yare defuñu ko dara nag lu dul liggéeyal sëriñ bi te nag ñoo ngi si ñaan képp koo xamante ni ñëw nga ci bis bi sëriñ bi defal la tawféex ba xamante ni déwén boo fi ñëw yokkute yokk gu la bett te ñoo ngi ñaan képp koo xamante dox na fi lépp loo xamante ne ñaan na ko fi nag yàlla ko sëriñ bi nangul liggéey bi nag ñun ay tuut tànk na nañ ci nekk rek xam ni sëriñ bi moom xamul tànk boo koy liggéeyal rek moom dalay fekk ci li nga koy liggéeyal moo tax ñun dañoo xar suñu tànkatu bi nekk ci di liggéey sëriñ bi chaque année nag danañ woote danañ soññee danañ teg danañ danañ danañ ñàq danañ def suñ doolee danañ def suñ suñ xéwlu poos def ko ci di liggéeyal sëriñ bi lépp loo xamante ne nag yem nañ fa naka suñ fàlla waxoon rek. Mbàkke fii nañ fii nañ toll tollale la fi buñ ko weesu weesale la fi foofu nañ tollook sëriñ bi fi mu ne nii lépp loo yor nañ ko baa ñu liggéey ko baa ñu am ko duñ ko denc dañ koy def ci liggéey sëriñ bi ndax kat moom dong liggéeyal ko moom dong moom moom ngay liggéeyal ëllëg doo ko rëccu képp koo lekk liggéeyal ku dul sëriñ bi ëllëg yaakaar naa da ko léegi rëcc gu maa ngi tuubaa nag ci kàddu yi boo amee leneen loo xamante ne da nga koy jàllwaat asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi leen nuyu seen tur ak seen sant di baal ñëpp àq di baal ñëpp ñaan suñu borom boo leen jéggal di ñaan lii ñu fekk ay déwén déwén ci barke Serigne Touba te ñu am ci ngërëmul Seexul Xaddim lii nag liñ ci mën jàngate mooy képp koo xam si Lansar nga dëkk te di nekk ndaw te nekk ndaw mooy royukaay bi dafa danga nga cee war a teg sa bët ndax boo dee xool sëñ Ibrahima boo ko xoolee meññitum sóori lan abadan la ndax boo dee ko xool ku xam Ibrahima dëgg-dëgg ci ginnaaw sóori lan nga ko xamee mu doon ci def liggéey bu am solo. dem ba sori lu ci ëpp mu ñëw taxawal fi lii kon ñoo xam ne meññitum sóoru leen abadan mi ngi law ndax boo dee xool daanaka sóoru leen abadan ndaw yëpp buñ defee ne sëñ Ibrahima bi sóoru leen dana màgg ndax boo dee xool Ibrahima bu njëkk euh, sóoru leen abadan ni mu daan ci taxawee sàppe si boo daan foo ko fekk dolli xasida la daan joxe di ko séddale lool nag da koo firndeel bi mu ko firndeel mooy bu mu ñëwee ba ci kaw sori penc mi tuuti dafa taxawalaat daayira Seexul Xadim di def bis bi kon lii ab jàngat bañ ci am mooy yokkute sóoru la yaatalu sóor la la kon ñi ngi koy ñaanal ci barke Seexul Xaddim ci barkeb Sëñ Tuubaa lépp lu mu ci bëgg rek yàlla na ko seen borom defal ci barke Sëñ Tuubaa jëwriñ gi de bég na lool yàlla xam na ne am daa am gàllankoor bu ko téye waaye moom moo ko njëkk a soññee ñëpp mbooloom sóor lan mépp lañ bëggoon mu teew waaye jamono ji xat-xat bi ak liggéey ak màggalu poroxaan gi moom moo tax waaye sëñ Ibrahima royukaay la ndax li tax royukaay la mooy dafa yombut nekk euh, ndaw am ñoo xam si da nga leen ñu liggéey Seexul Xaddim ndax yaakaar naa nii Lansar nii bu bu bu ko ñëpp defoon Lansar kon weesu na fi ndax ndaw ñi boo leen xool seen comportement ak nim leen di boo duggee ci biir baas bi soxna yi di durus gone yi xam si defuñ dara am na ñuñ toog toog sàppe su rafet kon am na liggéey bu am solo bu muy dox ci ndaw ñi kon ñu ngi koy ñaanal ci barke Seexul Xadim lépp lu mu yóotu rek yàlla na ko suñu borom teg loxo ci barke Sëñ Tuubaa te li ci ab solo mooy Lansar nañu jàppale ñu mel nii ndax da cee ndax da nga xool lansaar lu ji ëpp ëpp ëpp ñu mel ni dañ leen sobental te ñëpp buñ ko defee wallaay liñ bëgg ci xale yi dana saafara ndax li ci ëpp da xool xale yi daanaka ñu am na ñoo xam ne am yeneen jëm-jëm lañ am waaye ku mel ne sëñ Ibrahima mi ak ñeneen. suñ leen jàppalee yaakaar na liñ bëgg ci ci suñ koñ bi dana sot kon nag niñ koy ñaanal ci barke sëñ juba ak Seexul Xadim yàlla na ko seen boroom taxaw te kàttanal ko ak ku ñëw fii suñ borom defal la jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira di wax ne jëwriñ ji de xolam sedd na ci moom barke sëriñ Tuba xolam sedd na sëñ Ibrahima bu baax te soññee na façon soññee bu ne pour ñu génn mën a taxaw bu baax waaye nag li ëpp solo mooy pas-pas ak gëm-gëm te moom la sëñ Ibrahima am ndax metti na lool première bi ba jamono ji nga xam ne Ibrahima metti woon na te ku nangoo liggéey la barke sëñ Tuubaa ku daan dem di bàyyi boo ko fekkaan ci marché Ocass bu njëkk da nga kii te boo ko fekkee ci këram nga xam ne kii ku nangoo liggéey ku fonk boppam la kon kay ñu ngi koy ñaanal ci barke sëñ Tuubaa yàlla na ko seen borom defal ndam te gën koo yokk bu baax a baax ci xasida yi ci barke Seexul Xadiim wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla di sant mbooloo mi fi teew yëpp di ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ci barke borom Tuubaa waaw bis bi moom lu fiy doon suñu teewaay mooy fas yéene ñëw rek liggéeyal Serigne Touba comme ni ñu ko wootee mu mel ni journée xasida la moo xamante ni yàgg nañ ko ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye ma fatimul Bichri te ñu xam ko ci liggéeyal sëriñ Touba xam ko ci xasida yi ndaxte yaakaar naa nooru daare ni dool nañ mbooloo moo xamante ni li leen yitteel ak li di tax a jóg mooy lépp lu jëm ci Serigne bi rek ak fépp fu leen ci mën a wooyee dañ ci am sawar ngir dem defe ko ndaxte daayira bi dara sosu ko dara ñoruñu tamit lu dul liggéeyal Serigne tubaa kon fépp fu ñuy woo liggéeyal Serigne Touba buñ ñu fa wooyee dañu ci sawar a dem mu mel ni wax dëgg yàlla yàgg nañ ko ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye lool te heure ñu fi ñëwee tamit maanaam mën na ni lépp day gën a yokk ndax niñ koy waxee ci liggéeyal Serigne tubaa amul tànki ginaaw tànki kanam rek la am moo tax saa su saa su saa su ñu ñëwee rek lépp lu di ay xéewal xam ni maanaam dañuy bokk si ñi nga xamante ni ñoo koy saytu lépp suñu bët di ñu ko may ñuy ànd ci liggéey bi heure bu ndikkee dañuy gis que ni maam am na yokkute bu baax a baax wax dëgg yàlla te loolu day firndeel ni liggéeyal Serigne Touba la ndax ci kanam rek lay war a jëm te noonu rek lay demee waaw loolu la. dañ naan docteur Mouride ndax ñun daanaka ñu ñu ñoo faj Mouride mais dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a yéeme muy café dafa nekk loo xamante ni daanaka boo nee Mouride rek sa xel day si café bépp euh, depuis nag ñu ni suba la suñu xasaar ba léegi ñoo si nekk di segg di toppatoo gan yeeg yooyu noonu. ndax da di dafa nekk bis boo xamante ni bis bi euh, bisi bu yéeme la moo tax fépp fu la teg rek ak lu mënti doon rek pour nga tegoo fa xajoo fa xam ne fi la teg gis nga même bu la waxoon sax jëlal dàll yi ngay ngay toppatoo kenn ko dàll bu manqué sax danga war a xam ni loolu sa ngërëm sëñ bi fi la nekk ñun nag dama jàpp ne ñun café gi ñun jox si la suñu ngërëm sëñ bi nekk bu soo yàlla dina ko tërbee bu baax a baax a baax lépp lu si war dina ko def di sant bu baax a baax a baax di xamal nit ñi nag bu baax képp koo xamante ni am nga si doom wala mag wala rakk joo xam ne bëgg nga mu liggéey Sëriñ Tuubaa Mbàkke bu ñëwee fi dina ko liggéeyal bu soobee yàlla ndax fii liggéey Sëriñ bi dong lañ xam fas jom am fulla am fayda barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Saliou Fall Mafatihul Bichri at waxtaanee borom Tuubaa nooy saare ñëpp di leen nuyu di ndokkale mbokki taalibe yi waaye ndokkale itam waa daare Mafatihul Bichri ci ñi jël Sëriñ Ibrahima Ndiaye moom mel nag li waral teewaay bi mooy bis bi eh, day bis boo xam ne bisub waa ahlu xasida la di bisub murit yëpp ndax fu nu wootelee borom tubaa rawatina wooteel ku lu jëm ci xasida yi loolu képp kuy am murit rek sa bis la waaye nag nu am ci ab taxawaay bu yaatu boo xam ne eh, ñu wëlbatikuwaat nag duppe ñu bis bi muy daari ëttu waxtaani borom tubaa cër boobee nag doon cër bu rëy boo xam ne ni xasida yi tol rek noonu la cër bi toll ndax xasida yi ni mu toll mooy ne borom tubaa toll kon bu ñu tur wi dëppee nu tudde kon mbooloo moo xam ne itam seen yëngu gépp xasida la ak toog di waxtaane borom Tuubaa waaye nag nu yàgg ànd ak sëñ Ibrahima Ndiaye bés bi ba mu ko dooree ba fi mu waxee yow loolu mooy sama teewaay buy teewaay mbégte ak cant ak tawféex tabarikàlla waaw loolu de xanaa mooy li borom Tuubaa daan dénkaane rek borom taa daa wax ne jàpp leen sama xasida yi ndax wuuti wut ak may dagg ci sama yàpp yaram di leen jox daan ne jàpp leen sama xasida yi wuute wuut ak mu mel ne damay tànk sama di rek di leen tuur daan ne sama xasida yii mooy samay tànk ay tànk koy topp bu yàggee da gis lu bokk ci jëmm ja daan nag sama xasida yi man ci Sëñ Tuubaa maa ko bind mbind gi ma ko bind tax ma bëgg ñëpp di ko jàng ba tax mu ne kaay leen nàmp sa ci man njaboot laa mu bari mu soxla du ma buural daan sama battu ween nag mooy xasida yi daan nag jamono ñu ñëw joo xam ne dana lëndam lool jamono joojee la ciy gindee mooy jàng xasida yi moo tax mu ne yuxriju jumlatan li nuuri min suram xattiya insa alla si maal alam jamono nga ñëw lëndam lool waaye sama xasida yi nag ñooy gindi way ñëw nuur ca lëndam yóbbu leen ci ak leer loolu sama xasida yi moo koy def message bi nag mooy di ko jàng di ko fonk di ko toppate borom tax rek tax ndax suñ kaa ne kitaabati faaqat suyuqa tarbiya wa kulla xayrin wa suyuqa tarqiya ak njub dong la suñ Tuubaa bëgg ci nun te moo wax ne abda bi taalifii ilaahiyal hudda wa kullu man raamaxa daw bi hadda kon njub gi suñ taa bëgg ci nun sell gi suñ taa bëgg ci nun mbaax gi borom Tuubaa bëgg ci nun yar bi suñ taa bëgg ci nun mi ngi ci xasine bi bi kitaabati rabbi rabbi kullu mutaane wa ci bi kon loolu rek la demee jërë ngeen jëf وذل وتبارك عامدا سل وذلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وذوبه وحبليا فوضا به يحبطني من قبليا فيك وفي إنك الوهاب يا من به لم ينون الإرهاب يلا يا فتى وذل شرمدا وذل من على البذير أحمدا بالبشر واجعلني وجهك الكريم قلمي للمطالبين غير ظلمي ولتهدنا بك ذراة المستقيم سني woo yaa say xanaa te yaay faj suñuy aajo ñun sant nañ te xëj jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa te xëy nañ ci yow mbàkke ñun sant nañ borom màggalu tuuba santay li waral ci yow fawu mbàkke de ñun sant nañ borom màggalu tuuba santay li war ci yow fawu mbàkke de ñun sant nañ ruuy jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa yërëm jam ñi yaa def ko ñun sant nañ walay ñun de xam nañ ni yaa say xanaa dogon yow de duñ baaxle ñun sant nañ walay ñun de xam nañ ni yaa say xanaa dogon yow de duñ le ñun sant nañ tuuba ku ñu bëgg la sëriñ bamba yaa gën ci ñun sant nañ wile way ma way say xanaa bamba mi ci jam tas ci laa way ko ñun sant nañ bayit yi ma way man ci aw maamu koor ci laa ko man say ko ñun sant nañ ami xéewal ak mucc ak gudd de dalay dellu ñaan amin ñun sant nañ yeesal naa sama cant delluy dagaan ci ak jekku màggal gi ñun sant nañ borom muñ mu neex ma te kàddoom ga neex te kaalaam ga jot lool de moom laa di way borom kaala googee ñuy sant tey borom kaala googee waral kaala yi ku tal kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy war ci bu otom jug di dem na yëg lépp mooma te wal ngi tey te moom fas la daa te tey noo ngi nii oto kii الذنوب والمآسي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم عرفة بلسس يسر لي ميسر الحسير مقداره لي بلا مسير يسر لي ميسر الحسير مقداره السبب سكر لي ما يسر مسيري مقدار لي بلا مسير سكر لي ما يسر مسيري مقدار لي بلا مسير بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم على الفسيح بك اللسان موسى الفسيح صل وسلم على الفسيح jommal nu ban jom mi jommale nga ku mënta rékki ngëmug malaaka bam sew mbaata nga bewloo ab yónnante bam bew say pexe mënta ñu gëm sëriñ bi sun xola dee ci daam borom barak bi barkeb ku tedd ci ginnaaw bi nuyoo mbokki taalibe bi yépp di sof sunu nuyoo ak sunu siyaare ci Serigne sa Fall jaamu borom tubaa mi wàcce kàddoom mu mel ne xam naa day mel ne li waral jotaay bi muy waxtaane borom Touba tàmbali na ko ñun nag nga xam ne ñoo toog ngir fas yéene waxtaane borom Touba dunu ay conférence ñoo xam ne dañuy conférence dunu ñooñu dunu ñoo xam ne tamit dañuy ñëw ñu leen naan waxtaan leen ci nangam ak nangam di leen jox ay thèmes ñun bokk na ci ñooñu ñun benn thème la ñu am mooy daamay daam ku dul daam du daam mooy Sëñ Tuubaa suñ thème loolu la mooy ku dul Sëñ Tuubaa du Sëñ Tuubaa daamay daam ku dul daam du daam ndax démb daama tey jii daama ëllëg daama te suñ demee ba ëllëg danañ xam ne ku dul daam du daam te daamay ki daam bi lépp ñu sunu waxtaan foofu la ñu ko mooy Sëñ Tuubaa mooy Sëñ Tuubaa waxtaane ko nag ci jamono jii ñu ne doon na loo xam ne lu jafe la waaw ndax ku bëgg taggu nit ñi doo waxtaane Sëñ waaw ku ragal siinu xas doo waxtaane siñtubaa ndax dama wax ne am murit dëgg su toogee di waxtaan ci sëriñ bi keneen toog fa ku dul am murit mu wax bu jug te kooku merul waxtaani wul sëñ tubaa waaw lu waral loolu mooy sëñ tubaa soo ko tuddee kudul sëñ tubaa ci boppam day xam ne moom du dara waaw day xam ne du dara moo tax waxtaane ko jafe waaw muy fu ne la waay di bërëngoo di ñëw waaye ku ñëw ci Sëñ Tuubaa moom àgg ci àgguwaay bi waaw moom nag di ko waxtaanee bis moom ku tedd ki borom Tuubaa dafa nekk ci kees yi ci njëriñ am kenn ku ne jërëjëfati borom Tuubaa sëriñ bi woolu sëriñ Mbàkke Buso ne ko Mbacke Bousso wala Serigne Mbacke Diouf waaw Mbacke Diouf baat boobu dey àdduna taxu ko jug muy jërëjëfati borom Touba Serigne Touba nee na baat boobu àdduna taxu koo jug waaw ne ko Mbacke Diouf baat boobu ëllëg moo ko tax a jug te balakaa kaa kenn wax yàlla mi sakk jàmm ñi mooy takk ndigam naan jërëjëfati borom Touba. moo tax suñu mbay jaxate na ko ku yàlla far di sab géwal yónneen bi far di sab géwal sëriñ si far di say géwal ku la wëyul du la soxal waaw ku la wëyul gis ku la way ku la way gis ku la way ku yabu noppi mbaamu woy ngir am nga tànnee fi géwal muy baat boobu suñ tubaa nag ñépp ñoo maase yam ci moom kenn kenn kenn ku xam ci moom dara amul waaw day toog bis moom ku tedd ki di waxtaan ci màggam gi ci jëmmam ji ba ci yàgg ni bëri jug moom ku baax ki naan kenn xamut ci man dara kenn xamut ci man dara kenn xamut ci man dara Cheikh Abdou Karim Touré di jug moom tamit ne ko Mbàkke am na lu ma xam ci yow de mu ne ko Abdul Karim lu mu mu ko mbàkke xam naa ne su dul ko nag yow ku faatu dem sawara mu ne ko Abdul Karim loolu sikkuwul sikkuwut mooy Sëñ Tuubaa dul ko nag moom ku faatu sawara nga jëm waaw daa daa wax ne irsaadun i'lam bi anna alladina taalaqu biya law laa taalaquhum biya la daqulu naara baxda mawtihim walaw muddatan suñu taal moo ko wax waaw. daa wax ne na ngeen xam ne yéen ñi aju ci man muy muridi su ngeen ajutoon ci man ku faatu sawar nga jëm kon aju gi aju ci suñ tubaa moo nu musal ci sawara waaye bu nu ajutoon ci suñ tubaa ñun ñëpp maase xam na ne sawara lan jëm kon suñ tubaa mooy ki musal ci sawara waxtaan wi nag day mel ne si sali wax na ko muy diggante ku tedd ki borom tubaa ak xasaa it yi muy mbind mi mind mi nga xam ne si saaliw ku tedd ki day wax ne urju sët yi mtaan nee na yahtasu xarsu rabbi ne biha wa rabbillahu ndax ne xillee xibbi ku tedd ki nee na haajat qasaa'idi quluubal xamala lil arshi wa hiya busharun lil kammala ku tedd ki nee na sintu makaatiba te duurul bayna al arshi wal kursi yu tamuul mayna suñ bay dana ko sa mbind daan na waral seytaane fecc ku daw yónneen bu tedd ba na ko mbind daa tudd yàlla ko sabbal muy di muy di jaay ci ku baax ci ak yónneen ba ku nekk ñëw ak ndamam suñu seetlu foofu ngay ngay ñëw ci ci jotaay bi mooy diggante sëriñ bi ak xasaay bi euh, xam naa ci diggante bu gàtt rek ndax li sabab loolu mooy liggéey bu tedd bu màgg bi suñ Ibrahima Njaay mii di ko amal waaye da ko def nag ci tu tànk yi xasida yi nag bu nu ko dee waxtaane dañuy dellu ci li borom Tuubaa waxoon daan ne yàlla seen borom sàkkut wenn làmmiñ ci kaw suuf wu mën a nettali sama njariñu xasida loolu loo ciy dégg mooy lépp loo ca wax danga koy toxale ci waxi borom Tuubaa ak mbindam ndax moom kat dafa wax ni yaa ya xattiya fawqa sanni wasan na xëyri yi yaa asimal man ni kon kenn xamul ci kenn xamul ci xasida dara kudut moom borom wet gi ñu ci jëlee nag mooy jamono jii nu toll day jamono joo xam ne lëndëm na yàqu na ndaw ñi itam ñu bari ñi ngi riir jëm ci ab safaan fekk ku baax ki itam waajal xasida yii ngir moo tax sëñ Saalihu Mbàkke mu baax ma borom xel koom nee na xasida jaamu yàlla mujjug jamono la fi ma koy tàmbali nag mooy borom tubaab dafa am bis ku ñuy wax sëriñ Sahid Mbàkke maanaam képp ku yëngu ci xasida képp ku yëngu ci xasida laa wax teewlul wax ji képp ku xamagut lii nu nekk ci xasida itam teelu wax ji ndax xasida borom Tuubaa moo ko waxtaanal boppam xam nga lu mu wax njëriñ daa génn daa ne ey kaay leen nàmp si ci man sëñ Tuubaa kaay leen nàmp si ci man sëñ Tuubaa woote kaay leen nàmp si ci man daan ne njaboot laa mu barim soow te duma buural daan ne sama battu ween nag mooy xasida yi sëñ Tuubaa daan ne nag képp ku namp ba rek doom na ngeen moytoo mëq suuf ku baax moo ne kaay leen namp si ci man njaboot laa mu barim soow te du ma buural sama battuween muy xasida yi moo wax it borom Tuubaa daan ne sama xasida yi sama doom yi sama jumaa ji sama jumaa ji ku ci feeñ dootoo nëbb sama doom yii teg naa leen ci yoon woo xam ne réeruñu te ku leen topp duñ la réeral saa xasida yi nag ñooy samay tànk te ay tànk koy topp bu yàggee nga gis lu bokk jëmm ja moo ko wax kon sëñ Tuubaa mooy tàmbali di joxe xasida yi sëñ Saxiit moom borom Tuubaa defaloon ko tawfiix mu mokkal lu baree baree bari ci xasida yi loolu nag moo ko jural moom sëñ Saxiit Mbàkke bis mu tëdd di nelaw bi muy nelaw am kenn ci dong yi ku ñëw fëgg ko xamutoon ku doon nag ni ko pëkk pëkk kii ku mu mu ne ko man la rabal xas may borom aras mu ne ko nga ne mu ne ko tigi ndaw la daw dem ko wax waxu ku tedd ki borom Tuubaa ku baax ki wóolu sëñ Saxiit Mbàkke ba mu ñëwee ku baax ki daal di jël loxo bu tedd ba teg ci bopp ba ndeke la mokkaloon dafa bari si bi wàññi ko wàññi ko ba mu des tuut sëñ saxit nag di ko topp xam nga ne njëriñam amoon na buntu sañ saxit buntu suñu parti am rek buntu suñu Mbàkke Juuf ku baax ki doxoon nag ba àgg si buntu sëñ Saxiit Mbàkke wax nañ ne mu jël loxo bu tedd ba di ko raay ci cadre bi. naan des na diir bu gàtt nit dana jaar fii ne ku baax dëkkoon na ci kër gii sañ saxit daal di raam ne Mbàkke man day la nga wàññi woon ca la ma mokkaloon daa bari lool nu ko bëgg lan xanaa Mbàkke nga delloo na ko mu ne ko ndax des na mu ne ko waaw mu ne ko li des rek doy na sëkk ne ne tuut sëñ ne des na diir bu gàtt nit dana jaar fii ci këru njëriñ bi ne ne ku baax dëkkoon na fii sëñ Zeyna Mbàkke loolu lay bu amee ñii ñëw ci sa ginnaaw noonu lay wax doon say taalibe yaakaar la lool ñoom de xanaa Mbàkke ah sëñ na ko saxiit su boobaa ana sama xasida yi wowut kenn ana sama xasida yi la wax ne ko saxiit mu ne ko Mbàkke mu ne ko des na diir bu gàtt yàggatu dana fiiru ji ci sama béb ga ne ko saxiit su boobaa fasalantey mbub bu jeex tàkk su boobaa nag sañit gis ab sëriñ bu mat ab sëriñ dana jafe lool waaye gis taalibe bu matul taalibe dana jafe lool sañit su boobaa bàyyil naa leen fi sama xasida yi mooy leeral joojee jamono Sëriñ Tuubaa bind ko wax ne yuxriju jumlatan lin nuuri min zulam xattiya insa allasi mahal alam jumlata jumlatan li nuuri min salam te xatt ya nee na mbind mi koy def daa wax ne sama xasida yii dana génni mbooloo ci lëndëm yóbbu leen ci ak leer bu leer naññ ne boy mu mel ne kon ku xool jotaay bi ñoom ñëpp gindiku nañu génn ci lëndëm wutig leer ana lu ko def suñ tubaab ne xatt ya la ca dolli ko itam mooy ak njub mooy li mënta ñàkk borom taw daa wax ne lu waaye di sàkk ci àddina lum rëy rëy boo ko amee lu dul ak njub ab saay saay moo la ko ëpp daal di wax ne njub googee nag yàlla dogal na def na ko ci xasida yi ba ku jàng njub njubug suñ borom ka gam doon wax rasulillahi ne ko du yow yaay xool kuy jub ak ku dut jub jub mi ngi saa loxo bi suñ ci waxee yàlla ga la feeñal ci sama taalifi ba ko jàng jub ab daa mooy feeñal na bi taalifii ci sama taalif yi illahiyal huddaa loolu nag moo waral wa kullu man raama haddaahu bii haddaa kon ku bëgg sa doom jub sëñ Mor jox ko xasida yi mu jàng ko ndax borom Tuubaa nee na njubug yàlla ga ab daa bi taalif yi feeñal na ko ci sama xasida yi la wax loolu moo indi wa bi kitaabati rabbi rabbi kulla mutaanaan li wajhi rabbi suñ ko wax loolu suñ tubaa ihdi muridan la wax yaddubul inaara te ak njub mooy li mënta ñàkk ci murid bi moo tax jamono jii jàngkati xasida yi ñoo gën a jub ci àddina moo tax ku bëgg sa doom jub xasida yee tax mu jub rawatina ak jaalibatu loolu waykata ko wax waaw wax di siraatal mustaqima kulli wajaxal kasiiran naa yafnaa kulli moom borom Tuubaa itam wax ci ay wax yu bari ci mbind mi ci ginnaaw bu xasida yi demee nii xasida sëñ Saaliw Mbàkke nee na borom Tuubaa daana durus di yëkkati daan lii doy na soññee ku xamut na xamati moom xasida yi ni mu ko soññee tax na moom ku baax mas naa génn bis njëriñ daan ne boo mujjug njëriñ gi ci mujj gi daan bu ngeen demee ba gisatu leen ma bëgg maa gis te bëgg maa am ana fu ngeen a wute ma ngi na ko mbàkke day loolu bëgg nañ koo xam mu ne wut leen ma ci sama xasida yi daan ne sikk wut ne ku ma ci wut dang ma moom xasida moom mbind mi moom xasida yi borom tubaay nga xam ne amut dara lu gën a gaaw ci jamono ji xasida moo tax borom tubaay wax ne bu leen sikk ne sama xasida yi ñoo ma gën a gaaw ci defar borom taa la wax léeg-léeg borom taa wax ne damay jub sama waay yor sama mbir mu rëy bëgg koo def ci moom nee na bu ma ñëwee fekk xasida yi def ci loo xam ne raw na la ci bëgg def ma am gàcce moo taxoon mu wax si am sot ne ko gàcce da dama dal waaye mbind mi muy xasida yi moo ma koy teg mu xasida yi loolu danaa ci nettali benn xissa boo xam ne sëñ Ibrahima Sarr Njaañ mii la woon digganteem ak ku baax bis dafa nekk dëkk bi ñuy wax mux mux te sëñ Basiru Saar moom ko si Ibrahima Saar Njaañ ba mu nekkee bis digganteem ak Touba rek ñeent fukki kilomètre lañu yu teg nee na mu def bis bu set bu tëddee guddi nee na baat bu mel ne baatu borom tubaa day ñëw ba ci nopp bi ne ko Ibrahim nee na bam bam bam bam ca jaaxlee daan baat bii may woo day dama nduru baatu ku tedd daan ne xam naa damay woo waaye xaaram muy jub jóge fa ñëw ci këru njëriñ bi ko baax gisee ne ko kooku Ibrahima mu ne ko am mu ne ko ana loo fi def mu ne ko Mbàkke yaa ma woo ndax damay def bu ma tëddee guddi dégg baat bu mel na sa baat bi di ma woo moo tax ma wuyis mu ne ko xëkk saa dama laa wooru ne ko ñen ñeent yii ñoom a ganesi ma bëgg laa booleeg ñoom yow Ibrahima na ko ñeent yi xam nga yumoo mu ne ko déet mbaj mu ne ko gudd fan barke wërsëg ak faatu tabbi aljana dañ maa gane si ma woo la bëgg laa booleeg ñoom waaye nag Ibrahima li ma ci yéem mooy dangaa ñëw ànd ak ñeenti yooyu yii ma lay laaj loo taqaleeg ñoom mu ne ko mbàkke xanaa takkoo si xës di di ko jàng guddi gu jot loolu borom Tuubaa wax na ko te loolu mooy li wax ne damay dib sama waay bëgg a def ci moom la may def ci moom fekk xasida yi wuutuma ci kon lépp lu waay bëgg ci àddina lu mu rëy rëy xasida yi moo ci gën a gaaw moo tax faw xasan ni jaata moo tax bis moom borom tubaa ci këru njëriñ bi dafa am gone ko romb tu tànk loola ñi jàng xasida ñëpp rawatina tu tànk yi danañ ci mën a jël bind ba mu ko rombee ku baax ki di ko xool ba yàgg mu ne nan moo ko dabal ba muy bëgg ñëw mu ne bàyyi leen ko mu dem nee na ba yàgg sëñ bi ne xanaa yéeme na de li ma def nga ko waa Mbàkke woo woo jëm ba muy ñëw nga ne ko dëppale xanaa ñoo ko Mbàkke ko yéem nañu mu ne moom ka damaa romb ma gis ñu takkal ko drapeau liwaal xamd te xaw ma lan moo ko war a boole moom waaye ne tuuti ne na ñu xamal ma ne ma xasida yi muy te ko ci mag ñi moo ko yóbbu foofu mag ñi bu ñuy jàng xasida da koy teewlu taxutoo tax man di ko durus waaye moo tax ñu tappoo ko drapeau liwaal xamd jërëjëf sëñ amul morom moom sëñ Tuubaa loolu it moo ko yóbbu ci bisit am na ndaw lu ko rom borom Tuubaa ne ci kii kumu kan la féeteel ci fere ñu ne ko maam sëñ Isaa Jeen mu ne day doom jun jur wala doom jun ko mooy ab bem wala doomam ñu ne ko ah moom day doom jun ko jural la mu ne moom kat damaa romb jéego bu mu jéego kënu tàkk ci aras te xooma la ko ko may waaye nees tuuti ñu ne da doon ijjantu ci xasida yi te jotu koo mokkal moo ko may loolu nga xam ne kon cër ya gën a màgg te gën a tedd xasida moo koy may moo tax am na naaru gànnaar am ñu wax ne Cheikh Sidiya baaba la daa ñëw ne ko man day mbàkk xam naa xam naa waa sàngam ak waa sàngam waa sàngam ak waa sàngam day xam naa leen ahlu nangam ahlu nangam ak xam ne waaye ahlullaahi laa xamul mu ne ko baa bu ma la waxee ne la ñan la sa xel du ci deng déng mu ne ko mbàkke boo ma ko waxee ni ma gëmee alxuraan laa koy gëmee mu ne ko boo doxatee ba fekk mboola mu toog di jàng sama xasida yi ñooy ahlullahi xulubu ahlullahi ndax wii aqbarat waaw ahlullahi ñooy ñi nga xam waaw bu yàlla toogee ñoo koy wër muy ku bu yàlla toogee ci siisam bi ahlullahi ñoo koy wër muy laaj ñooñu mooy ñan sëriñ bi ne ko foo fekkati mbooloo mu toog di jàng sama xasida yi ñooy ahlu leexi dane nag tuuba liman amana ahlu leexi suñ tubaa nee na texe ñeel na képp koo xam ne gëm nga ahlu leexi dane nag waylul liman ankarahum bi leexi mbugal ñeel na ñi nga xam ne danoo weddi ahlu leexi muy texe ñeel na képp koo xam ne gëm nga ahlu xasida waaye texee di tamit ñeel na képp koo xam ne weddi nga ahlu xasida mooy loolu kon